Mame Mbaye Niang mon frère euh, le ministre du tourisme Mame Mbaye bi ñuy jóg dëgmal woote bi mhm. mu xam ne njabooti président Macky Sall la mu taxawal coalition Sénégal 2035 alors euh, ñu juboo si ak kilifa gi ñu demee ko ci élection yi yàlla dogal ñu jël ci ndam jiite commune Saly Escale ah. sous la bannière de Sénégal ah, je l'ai rappelé pour faire le rapprochement diggante bi nga xam ne na am sa diggante yow ak Mame Mbaye parce que Mame Mbaye euh, <laughs> dafa nekk personnage boo xam ne nit ñi mënuñu ko comprendre trop euh, déjà euh, ci local yi il avait pris cette décision dara fekk ko ci bu ma ko mën a tuddee noonu tey jii aussi à la veille de la présidentielle mu nekk rendez bu am solo mu yëkkati ay kàddu yu xaw a doy waar de soutenir le de Benno Bokk Yaakaar loolee naka lañ ko mën a comprendre. voilà merci beaucoup parce que tey actuellement de l'actualité occupe quand même le devant de la scène mm -hmm. présentement euh, dafay koo xam ne nii c'est mon frère euh, ñu jaxasoo am ay relation yu am solo si wàlli politique aussi muy koo xam ne nii dama koy déglu di ko suivre si lépp loo xam ne posé na ko comme acte rek ma gunge ko ci lool mhm. li tax ma di ko def nag mooy dama gëm ne moom njabooti président Macky Sall la puisque keroog mi ngi koy wax ci benn télé ne bokkoon na si ñi sanc APR. mu di si sonn di ci dox di ci wax. di def kéemtalaay kàttanam pour dajaleel président njabootam tey bu jëlee benn position man ci ñi nga xamante ne nii ñooy ànd ak moom ci wàlli politique bokk naa si ñi ko gën a jege bokk naa si ñi nga xam ne mi ngi waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. tey li mu wax. man damay approprier wu moom ay kàddu. Hmm? parce que li mu wax lépp dëgg. ça vous engage. ça ça nous engage. vous ne soutenez pas Amadou Ba. ça nous engage vous non li mu wax waxul ne d'accordul si candidature Amadou bi parce que bu ko bañoon bonoon du bokk ci gouvernement bi nga xamante ne nii Amadou Ba moom mooy candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar. Hmm. président Macky Sall nga xam ne mooy suñu kilifa tànn ko coalition bi tànn ko parti bi tànn ko. mais moom dafa jàpp ne politique fi président Macky Sall yem moom foofu lay yem ci wàlli politique moom loolu la wax. il ne se voit pas d'avenir après Macky Sall. il ne se voit pas il ne se voit pas d'avenir politique après le président Macky Sall loolu personnalité am la. loolu la gëm. mais est-ce que rafetul woon aussi mu accompagner ko jusqu'au bout. ba Macky Sall moom it mu dem comme ni mu ko ni mu ko ni mu ko. ni mu ko xam nga xam nga nit ki boo koy accompagner. dafay fekk ngeen bokk ay yëg-yëg ngeen bokk ay motivation puisque Mame Mbaye njabooti président Macky Sall. Mhm. li mu wax keroog ci tele président moom la dénkaat Amadou ci ay kàddoom keroog ci investiture bi mooy yaatul dajaleel njaboot gi mi ngi koy dajale wala ja dajalewut ko li mambay gis man moom laa gis en tant que élu mooy que Amadou Ba notre candidat dajalewul njabooti président Macky Sall. dajalewu ko. vous ne vous sentez pas concerné impliqué. je suis élu je suis maire euh, et il y aussi je peut dire sans risque de me tromper que ëpp na cent quatre-vingts maires yoo xam ne maa ngi waxtaan ak ñoom kenn impliqué wu leen kenn waxut ak ñoom kenn seetul leen. mais est-ce que waxe ngeen ko fi ngeen ko war a waxee. wax neen ko fi ñu ko war a waxee bu la nit jiitalee. coalition jiital la yow yaa war a dem seeti ñi nga xamante ni ñoom nga war a àndal waaye dafay doon loo xam ne nii ñun dañuy gëm rek ne li nga xam ne ay jege ñaaleem mhm. wax neen ko fii si seen télé bi ku ci mel ni Birima Ndiaye mhm. invité neen ko fii si 7 mu ne Amadou ne compte pas sur l'APR ni sur Benno ce qu'il doit faire c'est d'aller charmer les loolu noo ko noo ko noo ko gisee kàddu yooyu. mooy que ne appareil politique bi nga xam ne président Macky Sall moo ko moom moo ko jiite Amadou mënta falu te compté wul si appareil politique boobu mënta nekk c'est pas possible. donc yéen li ngeen jël ne de du ngeen ko soutenir yéen a ngi mesurer ñoo ngi koy mesurer conséquence bu ci mënti am. kenn du ko ci ëppale. vous êtes prêt à perdre le pouvoir ci benn guerre fratricide. du ñu perdre la pouvoir parce que. ñun li ñu xam moom mooy président Macky Sall mooy suñu kilifa. Mhm. mais doxalin bi nga xamante ne nii moom la le candidat Amadou Ba di doxal jamono ji ñu toll dalul suñu xel. léegi li ma bëgg a xam mooy euh, doxalinam moo leen nar a ñàkkaloo nguur gi. wala yéen décision bi ngeen jël wala non non non doxalinam parce que ñun. dañu jox président non non dañu jox président Macky Sall carte blanche. Mhm. ne ko loo def ànd nañ ci. loo xelaat sax ànd nañ ci. mu def waaye moom nag président Macky Sall. def ay concertation jox coalition Benno Bokk Yaakaar ku si nekk jël kàddu ñëpp d'accord moom mu jël Amadou Ba tànn ko. Mhm. ñun ñu nangul ko ko waaye bu ñu la tànnee ba noppi. daf ci am lu nga xam ne yaa ko war a doxal sa bopp pour rassurer sa kilifa pour rassurer ñi nga xam ne ñooy ay njabootam.